sant yàlla cas de Covid yi xaw na wàññeeku lool waaye teewul nag euh, li nga xam ne mooy message bi autorité yi ministre de la santé joxe mooy ne ñëpp góorgóorlu encore ñu jël ñàkk yi loolu moo tax tey ci fépp ci dispensaire wala hôpital yi ci Sénégal ñàkki Covid yi ñu ngi fi ba léegi gis nañ ci adduna bi xam ngeen ne ni ñëpp dañuy voyager tey di dem réew ak réew gis nañ ci yenn réew yoo xam ne ba léegi nii jàngoro ji mu loolu moo tax nag ñu war a gën a xarañ ñaax nit ñi pour que ñëpp mën a dem ñakku pour ñu aider population yi il faut que ñu ñu sensibiliser leen pour ñu vacciner wu rappeler leen que vaccination bi dafa important dafa efficace pour lutter contre non seulement Covid bi mais yeneen feebar comme rougeole entre autres donc dañuy continuer suñu plaidoyer sensibiliser ñëpp euh, comme dañu am partenaire bu ñu soutenir dans ce cadre là am naa dañuy continuer ak moom di œuvrer pour que Sénégal yëpp ñu mun a vacciner wu comme ça ku nekk. fu nga fu nga toog fu nga nekk nga mën a nekk en